leen sama mbëggee la may gunge bu kayit ñi ñuulee ngir way ci bàyyi baa ci ñoñam maam ngeneel imaam asan seneraalo bàyyi kenn gu mag ci faydu baay li mu liggéey de war na dun mi donn na baay ci ay jëfam ku sëriñ alin sa baay yaa faati saara sa yaay lampam ngeneel nga nga donni leer ndimbal nga waay ci kawnu bi cheikh islaam kum do sa maam samp teel jox lay ngeneel kenn du la gaar ngir dox ci waar may ak imam lu mag la le 4 décembre 1945 la imam juddu keroog la mbër wàcc soodaan bàyyi ko teertu garanti lu juddoo ci tàgg su mënu naaw fokk mu jaaxali mbokkam ku donn diine ci baay ak yaay fokk mu mel ni imam asan fu asan géewee feeñal fataar bu imam kàddoo ñu dégg baay jëfam du wuuteeg alquran hadis yu wér la daan waxee laa biir mel ni mbay sadiix jàmbaar ba mel ni bun xataab roy na usmaan na mu joxe sawar ci yàlla ni aliyu fulla ju la imaam amoon kenn du ko ñaay ngir ak wegel lu mosa samp bu deefu ko imaam asan amul morom ku mosa jox fàtte na ko dimbale jaami